Euh, lii ñu bëgg mooy am jumtukaay yoo xam ni dinañ ko jagleel xale yi ak famille yi euh, wutal leen ay structure de financement ak un incubateur boo xam ne di leen former di leen euh, dimbali seen i projet defe naa loolu lu am solo loo xam ne dañ koo dañ ko bëgg taxawal te defe naa gala bi dinañ ci dinañ ci dimbali non stratégie yi ñu caravane bi ci la bok. parce que xam nga boy woote ci social ñun aussi dañoo bëgg aussi bu ñuy woote ci social def en sorte aussi que aussi nit ñi genn saafante ak waa Médina yi parce que occasion la aussi opportunité la woon aussi pour ñun tay ji ñu genn waxtaan ak wa Médina yi wa Médina yi aussi xam tay ji aussi lutax ñu jóg di organiser donc euh, soirée de gala bob, parce que c'est essentiellement donc social parce que tay ji soirée bi nga xam ne moom organiser recette yi ñu am yépp c'est pour aussi financer donc des projets des jeunes et des femmes de la Médina loolu nak tay ji jeune Médina mom moom gëm mom lañu xam motax ñu génn anda ak ñun ci caravane bi nga xamne mom lañu def caravane de sensibilisation la pour que nit ñi aussi am en repère la date du 7 mars 7 mars mom moy soirée de gala bo xamne du am mësta am ci Sénégal mësta am ci Dakar Wally Seck diko diko diko diko diko ko di ko di ko organi di tëgg moo tax nag di ci profiter pour wo wa Ndakaaru ñëpp rawatina nak wa Médina ñom ñi nga xamne mbir bi ñom ñoko mom kon jeunes yi surtout ñu ngi woo pour le sept inshallah allah nit ñi teel a grand théâtre ñu feesal grand théâtre def une grande fête ba paré am recette yo xam dañ koy delloo ci jeune Médina yi